jàpp rek président Diomaye ñu xaar ko Cap-Vert xaar ko euh, Guinée euh, aussi ñuy dégg sommet bi nga xamante ne sànq def nga ko ci sa revue bi ma ngay waaj am fële ca France le 20 juin ñuy koy nëga nigu foofee waxuñu ne daf fay dem waaye ñu ngi ko fay xaar comme yeneen i chef d'État waaw xam nga euh, paasa day wax <laughs> may may ree parce moom quand il de la France moom xam naa day perte réseau <laughs> wala beneen dimension lay nekk moom cukk ko rek non man man man <laughs> j'ai man j'ai été au Cap Vert uh-huh. je dis suñu aéroport yi on euh, pas organisé mais mais franchement euh, rigueur bi moo fi gis uh-huh. te pourtant ñoo leen dàq foofu aéroport mais euh, rigueur bi nga xamante ne gis nañ koy comment ils sont organisés fayloo ñu taxe uh-huh. pour nga dugg su ma juumul j'ai payé 31 euros ba ma jox waa ji 32 mu ne ma yoruma un euro. Mhm. am ku nekk sama ginnaaw beneen sénégalais ma ne ko jox ko un franc xaw ma un euro yi parce que moom moom moom la manqué loon. Mhm. pour dire quoi pour dire que euh, déjà booy dugg ci seen réew rek. am na loo xamante ne nii di nga ko joxe mu nekk une contribution buy jëriñ réew mhm. cest à yow dugg si nga au-delà de l'aspect touristique euh, am na ñoom euh, taxe boo xam ne di nga ko fay pour ñoom ñu utiliser ko si yeneen yi am nga rentrée d'argent mun na nekk fu ne te dëkk bi Euh, en tout cas Praia parce que tamit comme dëkk yu bëri am na parti yu ñaaw mais la capitale euh, na mu mel da ngay yaakaar ne lii nekkul ci réew yi ñu jege et c'est pourtant une heure de de de de de vol soriwul donc yi ñu mën a jëriñu ah parce que am na ay kuréel yu fi nekk ñu ngi jëflanteeg Cap Vert ñuy ñëw ci réew bi ñuy am ay partenariat moo xam ci wàllu santé moo xam ci yeneen i domaine mm. donc loolu itam nekk na loo xamante ne bu ñu tollee fenn fii te réew di wax ne am na lu mu bëgg a def euh, am na fu mu bëgg a jëm day baax itam ngay mën a jëflanteeg yenn réew yi. Mm-hmm. pour mën a jëriñoo ci wàllu expérience ah, ci yoo xamante ne nii euh, am na am na solo beneen bi mooy euh, Guinée man. du ma nekk ci l'aspect géostratégique comme ni ko ñeen ñi defee mais dañu am une population mhm. boo xam ne sénégalaise buy liggéey foofu ni suñuy doom seen doom yi réew nekkee fii tamit di di fi mhm. liggéey donc baax na tamit euh, président bu yegsi mu dem dalal xelu njabootam parce que euh, ñooñu itam euh, di gis sa njiitu réew mu ñëw fa nga nekk dina baax moom itam au-delà de conseiller ambassadeurs yi nañuy jàllalee information ci domaine bu ne mhm. mais sa njiitu réew ñëw taxaw dafay gën a indi proximité par rapport ak say préoccupation gën a jege ñi nga mhm. xamante ne nii mooy kilifa yi donc foofu itam am na solo pour ñu waxtaane ko mhm. dañu nekk itam ci zone boo xam ne dañoo soxla sécurité parce que yooyu pour waxtaane ko da ngay déplacé wu waaw nii sa sa sa seen président ñëwee fii Euh, ci euh, euh, li nga xamante ne mooy prestation de serment bi c'est c'est pas rien c'est pas rien donc le fait la personne nangu ñëw mhm. affiché wu toog wane ne ñoom am nañu ouverture par rapport ak jëf mhm. mhm. jëflanteeg Sénégal bi nga xamante ne nii président ba fi nekkoon mu ngi ko doon def ñu gën ko wëyal donc la encore une fois il s'agit pas d'être dans une posture de du ma wax ak diw du ma def li parce que tamit yor réew c'est pas comment on gère ses émotions yaa njabootee ñëpp les quarante et quelques yi nga xamante ne ñoo fi nekk ci pourcentage te voté lu ñu président Diomaye fay même bu dee euh, fichier bi lañ ñu ci wax mooy euh, cinquante et quelques ñoo ko voté ñooñu ñëpp yaa leen njaboote ñu bëgg ñu bañ donc mhm. pour nga jël en compte tamit li nga xamante ne mooy les aspirations de tout un chacun iva va falloir nga bàyyi xel ne jëflante gi lu am solo la mhm. nga dem déglu même ton ennemi waxin la mhm. di dis pas que am nañu ennemi tel et tel mais même ton ennemi war nga mën a toog ak moom pour que yow nga xam ni comment tu tires ton épingle du jeu et je pense que am nañu fi ay boromi xam-xam ay kilifa yu fi nekk yoo xamante ne ni à ce niveau là euh, euh, war nañ ci mën a xalaat bu baax a baax pour xool comment renforcer déjà suñu dem beeg dikk bi mhm. gën ko yombal comment faire en sorte sur plan économique marché bi suñu jënd ak jaay gën a yomb parce que tamit jëlee réew indiwaat réew xam nañ li ci nekk ci wàllu tax ak jafe-jafe donc yooyu itam baax na mais yoon yi tamit mhm. li nga xamante ne nii mooy corridor yeeg jaar yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel parce que tamit day faciliter dem bi lu mu gën a yomb rek gën a yomb si poosu ñi nga xamante ne ñooy ñun sénégalais yi ak euh, Guinée wala beneen dëkk bu mënta doon mhm. euh, France mhm. Pa Ousma <laughs> Pa Assane euh, xaritu <laughs> xaritu Emmanuel Emmanuel Macron je pense que dans le discours qu'on a <laughs> entendu euh, du premier ministre euh, Ousmane Sonko devant Mélenchon wax na li nga xamante ne mooy euh, taxawaay bi nga xam ne moom la ñu bëgg léegi mhm. dans les rapports entre le le Sénégal euh, et l'Occident particulièrement la France mhm. et euh, ci li ñu dégg waxul ne dañ ciy nekk dans une logique de Euh, xeex wala lii wala la mais ku ci nekk mu nekk un partenariat win-win que mu am respect ku nekk tamit li nga ci war am nga am ko ci pas ñu ñuy nax pas ñuy surtaxé pas ñu ñuy yokk lu ñu warut am mhm. donc loolu itam pour waxtaanee ko je ne pense pas que ça va se faire au téléphone ah yenn yi tamit day baax bu dee sommet boobu noonu la présence de kilifa mhm. war na fa nekk bu jógee Sénégal pour mën a euh, représenter dignement le Sénégal moo xam ci li ñu bëgg ci présence euh, force étrangère yi fi nekk ñu waxtaane ko ci mhm. wàllu koom ñu waxtaane ko ci bor bi ñu waxtaane ko mhm. ah, ci sénégalais yi fa nekk tamit nañ leen yombal seen dund yi foofu noonu ak seen intégration ak it am fa liggéey mhm. donc yooyu noonu yëpp tamit toog ay euh, kilifa ñoo koy indi pour mën a waxtaanee xool ci li ñu yaakaar ne lu ëppal njëriñ réew mi dina ci tukkee loolu daal lañ ci am yaakaar xam naa waaw presque fekk si naa waxu aram fekk peut bu dee côté Afrique moom. Hmm. bi président demee gànn la suma ma juumul Ghana. Ghana oui. waaw li ñu ko. te naanaa ak mooy mission mu dem wax ak ñeneen ñi nga xamante ni dañu bokk ci CEDEAO. Hmm. te génn ci. muy Mali di Burkina di Guinée. Hmm. yooyu yëpp beneen bi ci des bon invité d'honneur bi bi kii def prestation de serment. président Guinée la waaw kon kay loolu dàq na problème mu ay ñii ay politicien lañ wala leneen. yàlla dañu ko yooyu jeex na. Mhm. gisatuñ lool te beneen bi ci des ñoom. xam nga dañuy xas Afrique naa dañuy coup d' mais am na coup d' bu gën a doy waar boo xamante ni France toujours mu koy teg suñ ko suñu ko yéeg yëpp coow loo fi dégg ñuy xataraayu France la jógee kon donc te terewul. ku fi falu tamit booy dem France duñ ko sikkal waaye booy dem Mali gii ñu sikkal ko. Mhm. loolu man. man loolu du sama gis-gis ànduma ci. Mhm. ñenn ñi ci des nag maa ngi ko teg ci waxu paasam teg ko ci waxu aram. maanaam mhm. bu fekkee ni sa amul lu mu ciy wax rek ñu jàll ci beneen. mais daal dem gi daal lu war la. lu war la mhm. euh, seeti gi lu war la. Mm. bon parce que Sénégal la quoi. oui te tamit Sénégal yàllaa ko musal ak i ñaan. di ko mm. Pape Assane di waxee. mais tey coup d'état yi xewoon foofu. wax nañ fi loo xamante ni coup d'état xaj na fi jëf nañ fi loo xamante ni coup d'état xaj na fi. te amoon na ay jamono sax ñu doon wax ni président Macky Sall di wax ba naan su ngeen xoolee. ba armée bi ba armée bi jël euh, mm-hmm. pouvoir bi. loolu am na lu mu doon junj am na loo xamante ni mate nañ ko ñun Sénégalais yi ànd ceeg ñaan goo xamante ni ñu ngi ko doon ñaan yàlla. Mm-hmm. lan naroon a ñaaw yépp defaru mais ñoom fi ñu jaar bu ñu yëkkati suñuy mbagg di ndamoo naan démocratie bi am Sénégal. Mm-hmm. c'est parce que dafa am yàlla moo jiitu Sénégal. ak ñu baax ñi nga xamante ni ñooy tàllal loxo yàlla di ñaan ba lu nar a ñaaw defaru hmm. mais na mu ñaawee comme ni ñu koy waxee ca Mali ñaawee ko te beneen bi ci des nag du neexaw